juróom benn wa arbaxina ak ñeent fukk jus an ci ay xaaj mi ne nubuwati ci xam-xamu yonante wa man raa ku gént fi manaam yi ci ay nelawam maa loo xam ne yëkkaraxu dana ko sib fajoot ful na tifli an yesaari yi walis càmmoñam ba talaasan ñetti yoon wala yetta xaw wasdate na muslu min sharri ma ci ayu la nga xam ne raa géntoon na ko lii waxan na ko ci gannaaw da ko baamuwaat rek ndax lee mu ci bëgg a sësale ci mbirum firi gént ar ruya as saalihatu nag da ko ande woon ca gannaaw ar ruya alxasanatu fekk na day ñaari nett li ci addis ba bee andi ar ruya as saalihatu bee andi ar ruya alxasanatu lim ne itam boo géntee ci say nelaw loo xam ne neexu la nga tifli ndànk tifli yu amul kàddu ci sa càmmooñ ñaan yàlla musal la ci ayu loolee nga gént bu ko defee jàmm rek moo ci mujj incha allah moom itam weesu woon na ko xanaa lañ cey dolli fii rek mooy boo tiflee ci sa wetu càmmooñ muslu ayu loolee nga gént na nga tëdde woon ba tey dangay wëlbatiku ndax yàlla wëlbati loolee ñu sib te nga gént ko muy lu rafet lu baax te it nee nañu nga bañ a nelawaat ndax mën naa am boo nelawee te fekk li nga géntoon di ab safaan day dil siwaat walaa yëmbax yi du yell an yu fassira bu firee arru yaa gént ga man ka nga xam ne laa xilma deetu xam la di ko ñeel bi xaa ca moom nee nag bu fekkee ne gént nga xamoo ko bul ko jéem a firi naa nangam la te it doo ko mën a xool ci téere yi nga xam ne moom la ñuy wax téere yi firi gént rek ndax mbirum gént day mbir mu doy waar ñaar mën nañoo bokk lu ñu gént te la muy doon cekkee ak la muy doon cekkee du bokk ibnu sirin ku yàlla mayoon la ci xam-xamu gént am na ku ñëwoon ne ko dama gént di noddu keneen ñëwaat wax ko loolu mu ne kenn ko yow sa gént li muy tekki mooy da nga aji màkk kenn ku mu ne ko da nga sàcc bañ dagg sa loxo te kenn ku ci nekk noonu la wéyee te gént genn la woon kookee dem na màkk ka ca des sàcc bañ dagg loxoom wala yu xabbiruha te du ko firee it xalal xayri ci aw yu waxee te fekk na moom xindafoo fa moom alal makruh yi nekk na ci lu ñu sipp day araam nag nee na gént gi xam nga ko waaye du aw yiw ba noppi nag nga wax kooku ne ko aw yiw la loolu kon wax lu amut la te dalaa wóolu yow nga war ko da ngay fexe ba wax ko waxi teggin rek da nga mënoo ko wax gént ka la mu doon dëgg-dëgg wala ba as ayut bi insha di chenri ci sadduway sadduway moo di nettali wayi jaambur su fekkee ne jëmmi way ya la muy tekki ayut kon nett li nga way wa wàññiwul dara su fekki way wa la mu ëmb da dig jaamu yàlla di ki julli ci yonante bi ak tagg ko ak lu demee noonu kon nett li nga tuyaaba lay doon ndax wa kon taalifkat bi tudd na nettali wayi jaambur waaye waxul nag àtteeb moom ci boppam mën a way di way moo tax sarabina wala ba asa bi inshaadi chenri mooy ay zikril insaani chenra xayri wa ama inchaauhu falam yatakallam almusannifu alayhi wa zahiru jawaasuhu moom ci boppam mu mën a way di way moom wax ji gën a wóor mooy dagan na ci kaw nag mu bañ a wax lu aay ndax way moom wax rek la te sax bu wayee jëmee ci taalif ci diine ak julli ci yonante beeg wax wax yu baax di ca laabiri nit ñi moom tuyaaba lay doon saye boomu baril koo baril li mu ci teg nag ne wamaa loo xam ne xaf fa wayaf na mine chenri ci way ahsanu moo gën a rafet teg ci wala yëmbax yi du yell ay yukk sira muy baril min hu ci moom wa min a suxli ak ci soxla wooga bi ci moom loolu mooy way ya muy wax day di ko nettali muy wayi jaambur mbaa sax muy wayi boppam bu fekkee jëmul ci jaamu yàlla daal néewal ga mooy gën ndax way moom li ci ëpp soo ko barilee rek te jëmul ci jaamu yàlla daal cee wax lu aay gis nga sax alxuraan di wax naa wa shu'araawu yatba'uhumul ghaawuun alam tara annahum fi kulli waadin yahimuun wa annahum yaquluuna ma laa yafaaluun loolu moo tax moom ci boppam su fekkee mën naa way itam daal su wayee jëmee ci jaamu yàlla loola baax na waaye bu jëmee ci yeneen yoo xam daa dagan rek yem ca say boomu néewal ko ndax di ba muy taalif way ya day jël waxtoom te mën naa jëmi waxtu wa ci lu ëpp tuyaaba ndegam waye jëmul ci ak jaamu yàlla moo tax mu ne daal lu mën a néewal ca way ya ak ci net li way jaambur ndegam moom jëmul ci jaamu yàlla lu mu ci mën ci néewal rek moo gën wa awlal xuluumi gën jaa yooyu xam-xam ya wa afdaluha di gën ca ñoom wa aqrabuha di gën caa jegeñ ci ñoom ilillah jëm ci yàlla ilmu diinihi mooy xam diineem ja wa sharaihi ak yoonam ya mimmaa ca la nga xam ne amara digle na bihi ci moom wa nahaate mu tere xan xoolis ko wa daxaate mu woote ilahi jëm ci moom wa xadda te mu ñaaxe alayhi ci moom fii kitaabihi ci téeréem ba waxalaa lisaani nabihi ak ci làmmiñu yonanteem ba wal fiqhu ak dégg ga fii daalika ci loolee wal fahmu ak dégg ga fii ci moom wat tahammumu ak yittewoo ga biri ayatihi ci sàmmam wal xamalu ak jëfe ga bii ci moom xam-xam daal nee na moo gën lépp ndax mooy cosaanul lépp ndax xam-xam ak jëf rek ci la ñuy amee texe àdduna ak alaxira te xam-xam mooy fondement bi ndax boo xamut doo mën a jëf teewul nag boo xamee ba noppi te jëfoo day mel ne garab gu amul meññet faaw da ngay boole xam ak jëfe kon ne xam-xam yi ba ci gën a yey ci nga yittiwoo ko sonne ko te it gën a mën a àggali nit ci yàlla ak ci ngërëmul yàlla mooy rek xam-xamu diine te loolu mooy xam-xamu tawxiid ak xam-xamu sharia xam nañuy wéetale yàlla ak xam lu mu tëral ci ay atte yoon ba mën koo topp loolu daal moo gën ci mboolem xeeti xam-xam yi nga farlu ci am ci digg bu baax a baax di ko sàmm bu baax a baax ba nanga ko xamee itam nga di ko jëfe noona wal xilmu xam-xam afdalul amali moo gën jëf ya xam-xam ak jëf ñaari cosaan nañ yoo xam ne ci la ñuy amee lépp lu baax xam lu baax di ko def ak xam safaan ba di ko moytu rek ci la ñuy amee texe adduna ak alaxira ci la ñuy amee ngërëmul yàlla waaye nag xam-xam moo ëpp daraja ndax bu xam-xam amut jëf du mën a am moo tax waaye nag boo xamee kese yem ci te jëfoo itam day mel ne rek da nga am fondement kese te tabaxoo teg ca kon doo am foo dugg fondement kese baax na waaye da ngay tabax teg ca door amum nekk ci njalbeenu téere bi net li woon nan fa ay ngëneel yu bàyyi ko ci ku baax ka sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yu jëm ci ngëneel yi xam-xam ak yeneen net li yu bàyyi ko ci ñeneen xanaan dolli ci lii ñuy askane ku baax ka ne moo ko wax ne ma jamihu afhaalil birri fil jihaadi illa ka basqatin fi bahrin wa ma jamihu afhaalil birri wal jihaadu fi talabil ilmi illa ka basqatin fi bahrin jëf yu baax yépp yépp boo leen doon tolluleeg jihaad ci yoonu yàlla ni jihaad ci yoonu yàlla di gënee jëf yu baax ya ca des day mel ne ni géej ëppi am ndox wenn tifliit mu ne nag boo doon seet mboolem jëf yu baax yépp ak jihaad bu ñu àndee ñu leen sàkku xam-xam di gëne ba tey day mel ne rek ni géej ëppee benn tifliit wa aqrabul xulamaay gën jaa jege ñi way xam ñi illallah jëm ci yàlla taxalaa kawe na wa awlaahum te gën jaa méngoo seen bihi ci yàlla man nga ne wa awlaahum te gën jaa yeyoo seen bihi ci tuyaaba yàlla ngërëmam ak saruhum mooy gën jaa bari seen xasiyatan ci ak ragal la xoo ñeel ko wa raxadatan ak ci xeymam fiimaa ci la nga xam ne xindahoo nekk na fa moom nee na boroom xam-xam yi nag yemoowuñu daraja koo ci xam ne rek yaa gën a ragal yàlla gën caawan gannaaw addunaag lu mel noonu dëgmal rek yàlla ngërëmam ku raw ci googu wàll rek moo gën ci boroom xam-xam yi moo ci gën a yeyoo ngërëmul yàlla tuyaabaam wal xilmu xam-xam dalilun tegtal la ilal xayraati jëm ci yiw ya waqaa idun te aji woon mate la ilayha jëm ci yiw ya xam-xam daal nee na say boo fonk bu baax ndax dalay won lu baax di la woo mat jëme ca wala ja uwóoru ila kitaabillah jëm ci téeram yàlla ba xasa tedd na wa jàllate mu màgg wa sunnat nabiyi ak sunna si yonanteem ba wattibaaxi sabil muminina ak topp yoonu way gëm ña wa xayril xuróoni ak ngën ji maas ya min xayri ummatin ci ngën ji aw xeet uxrijat woo génneef na ko lin naas ñeel nit ñi allah jaw bi nga waxoon mubtada la waxa fa tàmbalee najaatun ak mucc la mooy xabaram fi la wax bi daanoo daa wax ne wéeru ci alquran ak sunna farlu ci roy saxaaba yaak ña toppan ci ñoom tey rafetal loolu rek ci la ñuy amee mucc tey ak ëllëg fa fil maf sax yi nekk na ci buur ga te fekk buur mooy wéeru rek ila daalika jëm ci loolee alxismatu mucc wa fi tibaaxi salafi nekk na topp dawal ba asaalih ba aji yiw an najaatu mucc nee na wéeru ci alquran ak hadis ak roy ci saxaaba yaak gaa yu baax ya toppan ci ñoom daal rek ci la ñuy amee mucc loolu da koo wax waxati ko waxati ko ndax di fedd li rek topp sunna ni mu amee njariñ tey tax a texe ak topp bidaa ni nga xam ne moom lay xañe ak texe moo tax mu dolli ca waxum ñoom alxudwatu ñoo di roy téef wa maanaam ñoom lañu war a roy fii tawili ma ci taawil la nga xam ne taawaloohu taawil nañu ko wastixraaji ma ak sàkkoo génne la nga xam ne istambatoohu ballulu nañ ko nee na saxaaba ya ak gaa yu xam yooyee toppan ci ñoom daal ñoom lañu war a roy ci lu ñu taawil loon ñu taawil ko lu ñu xiyaasoon ñu xiyaas ko li mu wax ne wastixraaji ma stambatuuhu xiyaas rek la ci jublu daa bëgg wax ne saxaaba yi seenu dégg diine dafay yéeme ñu sës ci ñoom ba tey tàng ci ñoom noonu kon nag day nañu sëkk royteef ci lu ñu taawiloon nu taawile ko nañu taawile woon lu ñu xiyaasoon nu xiyaase ko nañ xiyaase woon taawil mooy ni baat bi ñëwee ci zahir ci alquran ba hadis ñu bañ koo jàppee zahir sa te gisee ko neneen ci misaal ku baax ki sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba mu ne laa salaata li jaaril masjidi illa fil masjidi ku dend ak jàkka boo demul jàkka ji jullee fa julliwoo loolu zahir si loolu lay tegtale waaye dañ koo taawil ci ne rek balaa jullee ma mat dëgg dëgg dëgg rek daa dem ba ci jàkka ja di teewul sax bu demul jàkka ja itam du tee julli na te am na julli moo tax saraabi naa la at tawilu sarful lafzi xam zahirihi ka xawlihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la salaata li jaaril masjidi illa fil masjid fa zahiruhu la salaata saxihatun wa xaasiluhu anna madlula lafzi al asli nafiyul xaqiqati min asliha wa huwa la yasixu qatxan kon fa yultafatu ila al qaribi minhu wa huwa nafiyul kamaal wal istixraaju al qiyaasu ka qiyaasi xaddil xamri xalal xadri kon ba tey lépp lu ñu xiyaasoon rek mën nanoo rey ca ñoom xiyaas loola xiyaas nag mooy loo xam ne waxuñu àtte ba waaye gis nañ lu ñu àtte loo xam ne ñoo bokk ay mbir ñu far ko yemaleeg moom loolu moo tudd xiyaas niki géttanuk naan sàngara yaxaluñ ko bu wér a wér waaye ñu njëkk ñi dañ ko faram xiyaas ci xaste xaste mooy waxal nit dox tànk caaxaan mi mbirum njaaloo te teguwut fenn xaste googu juróom ñett fukki yar lañ cay caw ka ko def bu dee gor bu dee jaam ñeen fukk na nga ko weesoo woon bu dee sàngara nag dañ ko xiyaas ci géttinu xaste googu te jàppe ko juróom ñett fukki yar ku naan sàngara rek moom sumandeeg sumandiwut ñu caw ko juróom ñett fukki yar wa ida xtalafoo ndéem wuute nañu fil foroxi ci bànqaasi fiq yi wan nawazili ak xew-xew ya lam yuxraj deful génn xan jamaahatihim walis mbooloo seen ne saxaaba yi bu fekkee attey fiq yi ak xeeti xew-xew ya xewoon maasi woon nañ ca atte ca menn mbir dogu ca ci nangam su boobaa loolee kenn sañu caa juyoog ñoom faw ñu fekk leen ca ndax lu ñu dogu rek dëgg la kenn du sañu génn ci lañ bokk dogu ca bu ñu wutee nag ci xeeti atte yi fiq yeeg xew-xew yi nag moom wuteeg borom xam-xam yi yërmaande la boo ca topp rek mu daal di baax walhamdu xeeti cant yëpp lillahi ajee la ñeel yàlla àlla si yàlla mi nga xam ne xadaanaa jubal nanu mooy tawfiixal nanu li haasa jëm ci lii wa ma kunna te nekkunu woon li naxtadiya di gindiku mbaa di jub lawla an xadaanaa budul ko woon ak jubal nanu allahu yàlla mi ngi jeexal téere bi ci sant yàlla mi nga xam ne moo ko tawfiixale taalif téere bu demee nii fekkoon du woon tawfiixu yàlla kon lii du am bu daaneele xaala wax na abu muhammad abu muhammad abdullah ibnu abi saydin te mooy abdullah ibnu abi sayd nee na xad atay naa dikk nanu xalaama ci la nga xam ne charat naa sartoon nanu an na atee nu dikkee bi ci moom fi kitaabi naa ci sunu téere bi haza bii mimma ci la nga xam ne yan tafexu dana jëriñu bi ci moom incha allahu ndem soob na yàlla man koo xam ne raxiba xemem na fii taalimi zalika ci xam lu loolee ne daawi maxnaam fii taxallumi zalika waman ak nga xam ne ihtaaja aajo woona ilay jëm ci moom minal kibaari ca mag ña nee na la ma digi woon ne moom laay andi ci téere bi andi naa ko muy loo xam ne gone yi taxan may taalif moom xam naa ne daañu ci mën a jariñu incha allah waaye itam mag moo xam ne aluwaam soriwut ba tey dana ca mën a jariñu bu soobee yàlla wa fii nekk na ci moom maa loo xam ne yu addi dana àggale aljaahila ajréer ja ilaa xilmi maa jëm ci xam li nga xam ne yaa antaqiduhu dana ko fas min diinihi ci diineem wa yaa amal te muy jëfe bihi ci moom min faraidihi ci ay farataam wa yufhimu te muy déggle mooy te muy xamle kathiran lu bari min usulil fiqhi ci cosaani fiq wa funoonihi ak i bàngaasam wa mina sunnani ak ci ay sunna war raxaa'ibi ak i xememteef wal aadaabi ak i teggiin nee na bu dee ci wàllu pas-pas muy tawxiid andi naa ci dog boo xam ne manees na koo def yóbbal bu dee ci wàllu shariha bi muy xeetu farata yeeg sunna yeeg teggin yeeg masalay fiq yu mag yeeg yu ndaw yi ba tey andi naa ci lu bare bari loo xam ne manees na caa jariñu manees na caa yéege itam jàll ca kaw baatub arraxaay bale mu wax def ko mbooloo wax nan ba tàyyi ne bu dee ci yoonu Maalik moom nee nañu benn rek la ci am te mooy ñaari rakkay fajar wa ana man as alu danaa ñaan allah yàlla xazza tedd na wa jàll te mu màgg an yan faana mu jariñ nu wa iyaaka ak yow saa mbokkum sëriñ mi bi maa ca la nga xam ne xallama naa xamal nanu ko wa yu ay nanaa te mu ni dimbale wa iyaaka ak yow it alal qiyaami ci taxaw bi xaq yi ci àqam fii maa ca la nga xam ne kallafa naa togg nanu jëfe ko dafa daanele téere bi ñaanal boppam ñaanal mbokkum sëriñam moomee nga xam ne moo ko taxa taalif téere bi yàlla boole leen jariñ leen ci lim leen may ci xam-xam te itam may leen ñu taxaw temm ci lu mu bëgg moom yàlla sant leen ko muy warigar ñu taxaw ci temm ba mat sëkk bañ am ci ngërëmam da ko ñaanal boppam rek nag ak mbokkum sëriñam moomu waaye yal na yàlla yaatal ñaan googu ba dugal ci bokki julit yépp ak bokki taalibe yépp wala xawla amul benn xeetu pexe buy tee mooy wala quwata amul benn xeetu kàttan buy tax a topp illaa billahi ndare muy nekk ci yàlla al aliyi yàlla mi aji kawe al azimi yàlla mi aji màgg dafa daaneele wala xawla wala quwata illaa billah li muy tekki mooy jaam amul pexe bu mën a sukkandiku ba du mooy boroomam amul kàttan bu mën a sukkandiku ba topp boroomam na boroomam bëggee lu may rek boroomam moo ko cay defal tawfiq moo ko cay dimbali waaye bu dee moom rek dara du sotti baat boobu di laa xawla wala quwata illa billahil aliyil azim firi woon nañ ko ca njalbeenu téere ba waxan nañ ca ay njariñ yu bare bari ñu dolli caa yeesal ne nee nañu koo xam ne daa bari ay yitte ak ay tiis ak njàqare ki jafeñ-jafeñ nay bari la wax baat boobu ndax baat boobu da koy tàggaleeg mboolem njàqare yaag tiis tiis yaag ñàkk yaag xeeti jafeñ-jafeñ ya jële nañ ci àll yu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam da ko mas wax ne ko yaa aliyu ala uallimuka kalimatin isa waqata fi wartatin qultaha qultu bala jacalani llahu fidaaka qaala bismillahi arrahmani arrahim wala xawla wala quwata illa billahi alaliyu alazim fa inna allaha taala yasrifu biha ma shaa min anwaaxil balaa nee nañ àlliyu daa nettali ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon dane ko woon àlliyu teema laa jàngal ay baat yoo xam ne boo duggatee ci guta maanaam boo duggatee ci mbir mu jafe wax ko àlliyu ne ma ne ko waaw waaw wax ma ko kay ne mu ne ma da ngay wax bismillahi rrahmani rrahim wala xawla wala quwata illa billahi aliyil azim nee na baat yooyu day yàlla mën na cee teggil nit ay xeeti balaa mu door a daaneele nag wa sallallahu ala sayidina muhammadin nabiyihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran bu nu masaa di wax nooy xamee ne jant bi rëcc na ba tisbaar jot na daa mel ne waxin wa te daa manqué nu bëgg koo takk fii takk boo xam ne fu nu ko masa xamlee rek moo xam day ca tasawudu sixaar moo xam day ca aljawharu nafis moo xam day ca téere bii nu toll wala beneen téere takk bi daal mooy jëm ju ne moom bu xëyee ab takk ndeeram day jëm soowu takk ndeeram boobu day wàññiku ndànk-ndànk ba yàgg nag mu ne tekk wàññikootut su ne tekk wàññikootut li muy tekki mooy jant baa ngi ci digg asamaan si su bàyyi ko foofu moom jant bi nag loolaay rëccu jant te foofu la muxtaarum tisbaar tàmbalee li ci ëpp nag bu jant bi rëccee takk ndeer boobu moom du jeex léeg-léeg mu jeex waaye néewaana mu am bu tombeek takk ndeer ba jeex dañuy bàyyi ba beneen takk ndeer sosu jëm penku bu fekkee takk ndeer ba jeexut it ñu bàyyi ba mu yokku def askepar jëm penku ñu door a jàpp ne foofa la muxtaarum tisbaar tàmbalee dema dem nag ba nga xam ne boo nattee takk ndeer ba mu guddee ne boroom takk ndeer ba mënees naa takk nag ne doomi aadama ju ne bu nattee ñeenti xasabi loxoom mooy tolloo ko taxawaayam ba tey bu nattee juróom-ñaari ndëggoom mooy tolloo ko taxawaayam bu takk ndeer guddee ne boroom rek foofa la moxtaarum tisbaar yam daroor yi nag tàmbalee foofa wéy ba jant bi so mbaa nga ne ba nga xam ne sa diggante ak jant bi so genn julli moo fa xaj ñu daldi koy moomale takkusaan daanaka sax dooleel leeral rek la waaye waxtu julli moom yàlla def na ci xéewal léegi kenn ku ne mën naa am waxtu julli la dale ci fi at mi tàmbalee ba fa mu yem bis bu ne bu xoolee fañ ko bind daldi xam ne waxtu julli sàngam mi ngi jotee ci waxtu sàngam nga xam ne loolu moom lu jàppandee jàppandi la lu yaatoo yaatu la ci mboolem gox yi àdduna bi waaye rek dañ koy xamle ci cosaan ni nga xam ne moom la ko yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xamle woon rek kon yeesaluk téere bi tudd ar risaala foofu la yem mel na ne yeesal nañ ko yeesal bu neex a jariñoo bu baax a baax noo ngi yalwaan ci képp ku mas a am kaset yi rek nga andi ko ñu yeesalal la ko awaleel la ci bu yees bi te doo ci joxe dara waaye nag na nga andiwaale juróom ñaari kaset boole ca ndax ba ñu ko yeesalugut dafa doonoon fanweer yu manki ñaar gannaaw biñ ko yeesalee nag léegi fanweer yi tegal na juróom kon nag noo ngi yalwaan ci képp ku mas am arrisaala rek mu indi kaset ya ñu awleel ko ci bu yees bi du ci joxe dara waaye nag na ca dolliwaale juróom ñaari kaset ndax mu mat fanweer ak juróom ba tey noo ngi yalwaan ci képp koo xam ne rek déglu na kaset yi lu mu ca jariñu lu mu néew néew mu ñaanal ki ko doon jéem a leeral ñaanalaale bokki jullit yépp ak bokki taalibe yépp ngën ji njëgalu yàlla ngën ji yërmandeem ngën ji tawfiixam mu boole nu may nun ñépp taalibe gañu gën a nangu fa sëriñ ba nu bokk ci taalibe yi ëppale tawfiix ëppale ci lépp lu yàlla jaarale ci sëriñ bi nga xam ne buntub yërmande la bu yàlla def fii ci kaw suuf wa sallallahu taala wa sallama wa baraka ala sayidina wa mawlana muhammad wa alihi wa sahbihi wa xadimih bokki jullit yi bokki taalibe yi yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daa wax ne ad diinu an nasihatu maanaam diine mooy laabiire mooy jullit bi lu mu xam ci luy defar mu wax ko mbokki jullit yi ñu defaru ca lu mu xam ci luy yàq mu yee ci ay mbokki jullitam ndax ñu mën koo moytu daa am loo xam ne nag day xew ci jamono te yàgg na ci xew waaye léegi la ëpp loolu mooy li xew ci jamono góor ak jigéen jote ci sawukaay te waruñu woon a jote mën naa am góor gi daa jaawale jigéen ba joteeg moom defe woon ne soxnaam la nekke du soxnaam loolu nag bariwut am waaye xëy na mu am la gën a bari daal mooy jote joteeg njaaloo mooy ñoom ñaar ñëpp ñoo juboo ci jote ga te jote ga sañ ñu ko woon loolu njaaloo lay tudd ba tey nag mën naa am góor gi ëpp doole jigéen ja forcé ko ba joteeg moom kon loola njaaloo la ca góor ga waaye jigéen ja moom des ko tudd ak njaaloo ca moom saa yoo xam ne góor jote na ak jigéen te waruñu woon a jote ci yoon nañ xam àtte ba àtte ba mooy jigéen joojee dañ koo war a laablu nga xam ne bu fekkee amoon na jëkkër bu jëkkëram jotee ak moom dara ba kera muy laablu ba noppi bu fekkee amutoon jëkkër bu ko kenn takk ba kera laablu ngay mat laablu gi mooy dañuy wóorlu ba xam jote gu aay gee ëmbi na ca dara wala ëmbiwu ca dara am ndéet laablu googu nag ni it day toll rek day toll bu dee koo xam ne dafa ndawe ba du gis deret mbaa mu magee ba du ko gisati kon laablu ga yetti weer lay doon bu fekkee nag dana gis deret waaye yooyu jamono jote ga ëmb ca kon dañ koy bàyyi ba mu gis deret yetti yoon gis deret laab muy benn gisaa deret laab muy ñaar gisaa deret laab muy ñett ba laabuk ñetteel googee jeex ba deret topp ca ndegam moom kuy gis deret la te ëmbut ca jote ga kon loolu mooy ak laabloom su fekkee ëmb na ca jote ga nag gannaaw bu ëmb ba juddoo day toogaat ba gis deret